sopp na bi chers internet yu Dakar Buzz TV dal na euh, jàmm dalati leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi ñu commencé kook Les Échos yéenekaay mi des waat ci mesures yi nga xamante ni état bu Sénégal gi jël na ko ci njiitalu premier ministre Ousmane Sonko yéenekaay bi diñu xamal ni bokk na ci nag jubbanti doxalinu administration bi ndax yàqu-yàqu yi am ci biir nag bari na lool lu jëm ci yenn ci ay appareil di consommer courant lu bari jënd gi ñuy jënd appareil yooyu tamit lool tax na premier ministre Ousmane Sonko jël ay mesures am sàkku ci administration bi nag ñu jubbali seen doxalin bokk na ci nag wàññi yàqum xaalis bi nga xam ne moom ngi ci biir administration bi yéenekaay bi sax xamal nañu ne gis nga boo moytuwul imprimante yi ñuy def léegi par bureau dañu koy changer installé fa nag ay imprimante réseau maanaam nekkatul bureau bu nekk mooy am léegi imprimante dañuy boole benn imprimante mu yóbbaale bureau yépp te noonu lay demee tamit ci réfrigérateur yi machine à café yi micro yi léegi nag dootuñ ko joxati ay DG dañuy jël benn département lëmb ñu am benn matériel ñoom ñëpp ñu koy utiliser danañu interdit tamit ci biir administration bi ay installation de télévision bu nekk yéenekaay bi duñu xamal ne nguur gi de li mu nar mooy wàññi yàqate gi nga xamante ni moo ne ci administration bi ndax li ñu daan seetlu moo di bureau bu nekk ak télévision salle bu nekk ak télévision directeur bu nekk ak télévision loolu yépp nag dañ koy wàññi léegi ci administration bi à part yenn DG yeeg directeurs yi dootuñu accepté te ci benn administration ñuy jënd ay télévision di ko def ci ay salle beneen coow loo xamante ni tam mu ngi xaar gouvernement bi mooy tas gi président de la république Bassirou Diomaye Faye nar a tas haut conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social et altine bi ñu jëm nag la ñuy def plénière bi waaye samedi tey ji commission des lois bu assemblée nationale dina càmbar nag projet de loi bi est-ce que war na jàll waaw wala déet yéenekaay bi ne en tout cas démb waa Pastef seeni allié mu nekkoon waa Yewwi Askan bi gis nañ digganteem nag ak waa taxawu Sénégal ban taxawaay lañ nar a am ñoom waa taxaw nag ca biir assemblée nationale ci projet de loi bi lii nag moo jaral laajte en tout cas Abba Mbaye moom waxul lu leer moom député taxawu Sénégal bi li mu xam ne ci biir yéenekaay bi mooy ñun amuñu taxawaay di défendre waa Pastef wala boog di défendre waa Benno Bokk Yaakaar suñu yoon nekkul ci seen xëccoo askan bi mu ñu yóbbu ci assemblée nationale te bu liggéey bi tàmbalee dinañu xool li dëppoo ak bëgg-bëgg askan bii ñu def ko su dee dañu koy voté ñu voté ko bu dee duñ ko voté tamit duñ ko voté bu dee soxna ba bu parti pur bu Serigne Moustapha Sy moom li mu xamle ci biir yéenekaay bi mu di ñun député pur yi dañuy soutenir nag projet bii président de la république am ngir tas nag ñaari institution yi di CESE ak HCCT lépp ngir mu mën a respecter engagement moom président de la république lii quotidien ne taxaw Sénégal de tànk yi mu jël li nga ciy jàngee moo di naruñoo jàppale nag rawatina tas gi ñu nar a tas nag HCCT ndax Abba mu ngi xam le ci biir yéenekaay bi ne ci contexte politique bu jaxasoo la ñu nekk am na ñoo xamante ni position yi ñu jël ci par parloo la ne moo tax su ma nekkoon man député benn bokk yaakaar dina ñaan samay collègue député ñu mbaj di topp ñenn ñi ndaxte fañ leen jëmee nekkul yoon wi askan bi bëgg démarche bi nga xamante ni tamit état bu Sénégal gi jël na ko ngir tas ñaari institution yi di HCCT ak CES moom Abba Mbaye d'accordu ci tey d'accordu ci ëllëg jàpp na ne amul élégance rafetul tabar na lool tey ji nag ci samedi commission des lois bu assemblée nationale war a réunion ci biir commission bii nag la ñuy valider est-ce que jar na projet de loi bi yegg ca plénière ba comme ça député yi voté waaw wala déet bu fekkee ne nag ñu ëpp ci député yi d'accord ñu ci plénière laa la wax du am altine direct news na ubbi ci xët bu yaatu ne est-ce que dëgg-dëgg tey jii nii ci commission des lois dinañu rejeter nag bëgg-bëgg président de la république te mooy ñu tas ACCT ak CESE bi ne en tout cas tey jii lay lépp di leer bu ñu bloqué projet de loi bii ca biir commission des lois loolu muy firndeel na altine moom jarul benn député di dem assemblée ndax votu loi bi moom du mujj am te booy xool ca commission des lois bu assemblée nationale ñë ëpp nag waa APR lañ ndax fanweeri membre kasa lañu fukk ak juróom benn yi ñoom ñëpp APR lañu bokk boo ci boolee Moussa Diakhaté fukk ak juróom-ñaar lañu doon maanaam majorité bi ñu nga ca APR tey bu fekkee ne dañoo voté contre projet de loi bi maanaam su boobaa mooy bloqué nañu bëgg-bëgg président de la république ci assemblée nationale kon nag altine plénière du am tey lépp di leer ci commission des lois ci fanweeri député ya ñu rejeté projet de loi bi mooy nag ubbil la république mu tas assemblée nationale bii yéenekaay bi dañu xamal ni problème bi nag moo di gis nga calendrier électoral bi fa ay jafe-jafe de fi mu nii même bu ñu tasoon tey ji assemblée nationale dinañu am problème laa la wax pour anticiper ay élection législative ndax benn problème bi njëkk a am mooy diggante constitution bi ak code électoral bi règle yi war a tax ñu organiser fi ay élection présidentielle balaay décembre loolu mënul nekk ndax constitution loolu su boobaa dina indi ay jafe-jafe lool pour ñu programmer fi nag ay votu budget beneen jafe-jafe gën a am tamit ci organisation élection yi mooy code électoral bi lu leer la wax bu dee lu jëm ci wàllu parrainage bi lu mu néew néew war naa durer nag téeméeri fan ak juróom fukk maanaam 150 jours soo koy compter da ngay tàmbale ci jour bi président de la république signé décret bi organiser élection législative yi lii tamit booy xool durée bi day génn complètement mois de décembre jafe-jafe yii nag moo tax fi mu toll nii laa la wax même bu ñu tasoon assemblée nationale bi pour ñu organiser fi ay ak dialogue am diggante état bu Sénégal gi ne moo war a organiser élection yi ndax su boobaa loi des finances faaw mu ban assemblée mooy voté nag loi de finance boobu jafe-jafe yaa ngoog yéenekaay bi ne dialogue kase nag su boobaa moo fay sës diggante nguur gi ak opposition bi te bu ñu tasee assemblée nationale bii nag ay jafe-jafe dong lay indi seen diggante est-ce que su boobaa dialogue dana yomb lii nag moo jar a laajte l'observateur ne en tout cas Amadou Ba mu ngi defaru de jamono ji mu ngi gën defaru laa la wax ci langue politique gi yéenekaay bi bi def taxaw seetlu ci lancement parti politique bi muy nas ne ci fan yii ñu jëm moom Amadou Ba dana ci jublu nag ànd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko gëm ci wàllu politique bërëb bi mu fas yéenee lancé nag mouvement politique am bii ak format yi nga xam ne la ko fas yéenee defee lépp nag yéenekaay bi dellusiwaat na ci L'Info yéenekaay moom def taxaw seetlu ci àllu Casamance gi nga xam ne gannaaw ba suñu jàmbaar yi xeex nañoo rébellion ba ay village yu bari fi mu toll nii abandonné nañ ko waaye ña fa dëkkoon am jaaxle jaaxle ba léegi ndax xamuñu kañ la ñuy dellusiwaat ci seeni village seem gaa bi nag def na sorti wax ci lu leer ne xawma ñan waaye village yooyu fa dëkkoon bu la neexee mën nga dellusiwaat ndax lépp lu jëm wàllu sécurité fi mu toll nii jël nañ ko ba noppi nag boole ci di leen dimbale ba dootuñu soxlaati dara lépp lu jëm ci soxla askan bii danañ ci jàpp moo xam école la moo xam hôpital la moo xam marché la ba ci structure sanitaire yi dinañ leen ko jàppale ngir ngeen mën a am nag dund gu ñoŋ en lépp luy solution jamono ji ci seen condition de sécurité CMGA bi jël na ci engagement xam le ne village yooyu nga xamante ne ni abandonné woon nañ leen ku fa dëkkoon bu la neexee fi mu toll nii mën nga dellusiwaat ndax sécurité bu doy nag fi mu toll nii moo fa am source a moom dellusiwaat ci wàllu politique ak parti socialiste nga xam ne jamono ji ñu bëgg nag moo di xool ban taxawaay jël ci opposition bi def ay projection ci seen ëllëgu politique bëgg a dundaan nag politiquement mën a participer ci élection yi ñu jëm bokk na ci seen i mbëbët nag daal jiital ndaw ñi nga xam ne nekk ci biir parti bi ngir ñu incarner nag yaakaar googu nekk ci parti bi Aminata Mbengue Ndiaye di xam la ci biir yéenekaay bi ne il faut que ñu defal nag promotion jeunes yi nekk ci biir parti bi ba noppi nag boole leen de décision yi cérémonie bi nga xam ne mooy am nag ci week-end wii ci seen maison de parti Serigne Mbaye Thiam ci boppam nag mooy présenter document bi yaakaar gi parti bi am nag ci ndaw ñi laa turbine yéenekaay ne bu dee gëm sa bopp nag moom Bougane Gueye Dany moo ko jiite waaye amul lu mu yàkkul Macky Sall laa la wax ak waa Pastef tàmbalee ko ak livre bi nga xamante ni defal nañ ko bilan Macky Sall ci fukki at ak ñaar yi mu nekkoon ci biir réew mi mu jàpp na nag ñoom waa benn bokk yaakaar waroon nañoo am gàcca génn naan dañuy présenter ay bilan ndax sénégalais yi jéppi nañ leen jéppi goo xam ne fàtte sax lan mooy benn bokk yaakaar bu bëre la gouvernement bu bees bi nga xam ne moo fi nekk moom Bougane Gueye Dany jàpp na juróom benn weer yi ñu fi ne amagul lenn lu dal xel rek loo xam ne teg nañ ko Pastef daal nekkewuñ fi lu dul coow coowal politique ak coowal tas ay institution dellusiwaat na tamit lu jëm ci fonds politique yi moom Bougane Gueye Dany di xamle ne 17 milliards yi ñu jagleel fonds politique bi nekk ci biir palais de république bu fekkoon na yaxanal kese na moo taxoon ju gouvernement gis ndax ca diwaanu Mbuur depuis ñaar fukki fan a ngi nii am na seeni doom yoo xam ne dem nañ ci barsaak barsaak gii kenn tewu leen bët téeméeri ndaw lañ ak juróom fukk depuis presque ñaari semaine a ngi nii kenn mënu leen dégg kenn mënu leen gis lii tax nag seeni famille nag jaaxle lool bés bi la journée en immigration clandestine bi de ku yaakaar ne fay na yaa ngi nax sa bopp ba léegi ndaw ñaa ngi dem waxuma la dara sax mais léegi jigéen yi dal rek dugg ci gaal yi waaye gi dañoo dem ba ci digg ba mu commencé am ndox na ci jigéen yoo xam ne mu ngi woon biir am ci beneen jigéen ne li mu xam ne ci biir yéenekaay bi mooy sama doom duggoon na gaal yi waaye bi mu ñibbiseeg léegi dafa perte mémoire de dafa mel ne fi mu ay jinnee ku dugg am ci beneen parent boo xam ne moo financé ay doomam ñu dem ci barsak barsak gi waaye ñaari doomam yu jigéen yooyu ñoom ñëpp ñàkk seen bakkan ci géej gi Seydou Nourou Dia di expert en migration di xamle ci biir yéenekaay bi ne jigéen ñi di dem ci barsak barsak gi nag war nañ koo arrêté ndax lii nag ëpp na waaye bu ñu sukk sukkandikoo ci professeur Jibi Jaxate nee na jigéen ñooñu ñu ñàkk seen bakkan ci géej gii pour ñoom loolu nekkul échec la ragal kay moo ñàkk yegg nag ca bitim réew docteur Sely Badi sociologue di xam ne ci biir yéenekaay bi ne gis nga wàllum ragal moom buñ ko féetale rek ak jigéen ñi góor ñi ëpp ñu leen fit laa la wax te ci barsaak barsaak gii rek feeñ na ci jigéen ñaa ngi dem comme c'est pas possible réew mi quotidien ne ku wax lii rek wax lee insécurité bu nekk ci réew mi rawatina rayaate gi mel ne tulleeg màlle tax na nag police nationale fi mu toll bi agression yeeg rayaate jàpp nañ ci lu ëpp 400 personnes l'observateur na waaye teewul ba léegi nit ñee ngi rayaate def jëf ju ñaaw ba ci biir kër yi laa la wax am na ci ndax yéenekaay bi xamal nañu ne am na benn femme boo xam ne doomam bu am ñeent at moo sàcc xaalis téeméeri dërëm kase mu dem tàngal ndox ba muy baax mu xëpp ko ci ñaari loxo doomam ji nga xam ne ñeent at kasa la am lépp ngir mu bàyyi sàcc xaalis te téeméeri dërëm dong nag la sàccoon may laajte nag lii mu def maltraitance la wala dafay yar <laughs> yàlla baax na yàlla bari na sutura yenn yendoog jàmm bokk yi ba suba ak jàmm allah jamono ji ñu toll nii nag am wér jafe na lool ku nekk ak la muy jàmbat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 tey lay tàmbali.